waaw tey dañ fi daje ci ndigalu sunu camarade secrétaire général Alioune Badara Faye bi nga xamante ni moom moo nekk fii waxi naan Nimzaat convoqué woon base bi convoqué woon la 17e coordination ci li ñuy wax secrétariat élargi pour partager ak ñoom ay informations par rapport ak prénage bi nga xamante ni moom la ñu lancé tey officiellement. malgré la pluie malgré euh, euh, ak tàngaay bi boo gisee la salle était totalement rempli les militants sont déplacés en masse et li ci gën am solo moy bo duggé ci salle bi ay xalé nga ci gis. te élection yi ñu jëm ku ko bëgg gagner il faut que nga miser ci xalé yi. parce que politique du da ngay xaar ba politique jot nga jog dafa yag jappalé xalé yi dafa yàgg nek ci ginnaaw xalé yi dafa yag accompagner xalé yi motax tax tey bi mu woté né damay lancer parrainage bi fi waxinaanisaan ci parti socialiste xale yëpp ñëw wuy si ko ci biir kat ci biir euh, comité yi ci biir section bi moo tax tey gis nga salle bi nu mel. tas boobu ngay wax ne am ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar mu am ay candidats multiples en tout cas au niveau de la base ñun sentiruñ ko ici à waxinaanisaan le parti socialiste ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Alioune Badara Faye nos camarades de la paire qui sont là amul kenn kuñ ci yëkk ne suivre na yeneen candidats yi nga xam ils sont aussi de la paire. donc nu ñuy yaakaaree gagner élection yi mooy ñu miser ci xale yi. Et on va le réussir Inch'Allah, Inch'Allah rabbi Tay Amadou Ba bii mu choisir comme candidat mu nekk premier ministre nekkoon fi ay ministre gérer ay postes stratégiques, stratégique est un cadre de renommée bu ñëpp xam enthousiasme bi ndaw ñi am ci moom am nañ que dès le premier tour on va remporter les élections Inch'Allah.